boy wax ngir bëgg dara jaal ñi ngay waxal doo wax dëgg boy wax ngir di seen luñ lay jox doo wax dëgg doomi julit pire su ko jantum nattu tiimee na ubbi neegu muñ te dugg ca te xam ni yàllaay séddale war su ko dina buur la ku sa numéro génn nga jot ku sol baax te àggoo ci mbaax ñett rek kay nga àgg yàkkamti gis sa bopp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 armel yoo romb ko la koppalee nga ca ku alali adina taxanya fi ci kaw suuf nga dem ba hopital fekk fa boroomi carte grise ak etas jox ko digi kaasi meew ko teko kon jëru ko ku jongama tax a ñaaw ci kaw suuf lo yag yag ci kaw suuf di nga jongama ñu ko des na la sul bu mu at jongama juddu sa ginnaw kon jëru ko te borom keur bu nek juromi ci rengi ci yow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 Sul ko ci suuf su mu xamul fu yeme alal ni ko nak man fi la yem ma ngi wat ci sa keur ga ñama wara don don ma kenn ku nek jot ci sa lu bax lu ñu def ci man nak man alal dina la fekk fi sa wa bi waye lu ñaaw lu ñu def ci manit dina la fekk fi sa bammel bi ndax ya ma fi baan ma wax ni dañu ma laaj ni ma suuf yi nga xam day yëngu ci réew yi di daaneli tabax di da di mabbi étage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 te na nga daa ak ñom mo leen gëna jafé jafe képp ko xamni ki nak yalla defal na yow sa bop nga tukki bitim réew yalla denk la alal delu ci watal sa kër bay ndax kenn ku nekk ba sa bay di samp kër am ño xani bu seen sa bay du jur dom ju baax am ño xani ba sa yaay di sey bu seen pexe juboon sa yaay di sa yaay sa yaay di jur dom ju baax kon so dé ba yalla may la delu ci watal sa kër bay fa sa nday nekkan di fa sëy nga def fa tranga siggal sa nday siggal sa bay siggal say bok siggal say dekkando door def lanen loy man ti def yen ni doomu adama yi samp ay kër barna ci ño xamni ne jamono bi nu nekk ñu nga seenu njabot te yeguñu ko yalla denk la ay soxna nga am tay doom doom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 yene na ko fa fek yene na bu ñewé fek nga wér yene na bu fekke nga bu ñewé fek nga manal ko mu tawat la soxlaam la ko war na jox tego ko ci loxom xeyna na ko tek ko sa loxol soxna yom romb sa nawle bobu di sa mbokk ni ko boole naa la ak soxna ci borom barké boba dem ba faatu ke fi daan dik ta bok ca bok ga da fi tawat ay soxlaam ndaw sa tinj bu summi mu ñew bokko tak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 dañ caa digal ku ca bokul mbokk kese duñ yak seen mbokk kon may wax ni gaynde ga juddo walo ak gaynde ga ñoko la ko ba ñepp gaynde lañu nun ñi ri teul bi no wara xani xam bu ne fa lañ ciir ku ca yegg yamal ba lañu la yemale ndax bokk go bokul te ñoko ko bokk xam seen bop buñ ne ci yaatalé ba di la ca teral so bëggee teraanga ja sax bu ca tabal sa fayday bop te bu duggé wañ daa war di maslaak dóom sayu matt bu xamoon fu mujj bu rombéb seen sukkal ko kon itam ku baax wéttaliku ku yaru falu ku réew réer ku réy ñàkk ñi gën boroomi million bu ko xaj màttee jërul ngay yedd xaj ba ñaari xaj lañu su baaxoon wéttaliku ba xaj du ko matt mbaam xotti mu ko jot doon na nag këla jur waaye melo kala yar ndax dañ ne mag mat naa ba ci dëkk man ma ni leen xanaa bu dee mag mu jub bu mag mu deung dikoy safara lay yor safara xëy talub dekk ba neeg yene ñaay ta su ngone jonga may dam nit delloosi ko mba kenn reer mag su gëmul yalla ta am ak jot lum la digal lankal ñune ñune doomi jiitle du dom mané kon bàyyib jiitle matul bàyyi askan mu nek doomi jiitle nga cey def lo xani ni doomi ci juddo defuñu ko dañoo waroon ne doomi jiitle du don mo gëna rafet doomi du dom ñu ni jigen soppal te bul wolu kon gorit soppal te bul wolu ndax lu jigen def bañ yobbu ko tribunal mo goro ko and kon buñ né jigen soppal te bul wolu waroon nañu gorit soppal te bul wolu ma wax ci ak ah, mer nak so meré fajo koy wax bo noppé am gatché ndax wa nga toj pinch wo xani mëna to ko dabu te barmool bu nek mën naa rëcc nga dab ko delloo ci yeew ba mu dess bu bu ko rëcc tané to ca dara bo faje ko jëf fa sasa mu sippile ko gaynde fàdd la da ngay méré nit ba xaj ko ba xaañ ko ñun la ral ci kassa ba nga dem ba ñek ngay xaañ kon mer ma sippile ko gaynde fàdd la nga mer faje ko muñ mu suppi ku njëndi nga dëkke ko ku mun ta muñal kenn ki mun la la mos ba nek kenn kon asgor, gor ak ngor ak goré dañoo yem te asgor as gor ñaar ñuko jure yem juddu kenn mu la jam sa morom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 de la mu dem nawleem mu door a nekk xalifa jamono jii nekk nag damay faral di wax ni gor su nekk fii mu nekk yaa ñetti bopp fi gën a ubbu bopp bi nga xam ni bët ba ca nekk bëggut a seetlu naqari yàlla nopp ba ca sax bëggut dégg lu naqari yàlla am ki am njaboot gu jigéen ba ñu mat a am jëkkër te amaguñu ko te ngay bañ gàcce kookoot boppam wuubu na